Euh, Père Palla moment bi ñu toll nii dëkk bi toll na foo xamante ne yëngu na loolu euh, muy ji diggante ñaari acteur politique mais diggante bi ci ñaari doomu réew la jóge euh, moment boobu ak réew mi yëngu-yëngu bi muy bi mu yëngu ba léegi ban ban gis-gis nga ci am. waaw gis-gis bi ma ci am de mooy la góor ga waxoon rek maam Abdou mu baax ma. nee na boo yéegee ci gaal bul ñaan yàlla sa gaal sa ëmb mucc ñaanal gaal gi mucc nga mën a muccaale kon nag dañuy ñaan suñu réew mi mucc lii nga xam ni dugg na fi yàlla suturaal ba mu jóge fi ci jàmm ak salaam ndax boo dégloo ñaar ñi ko seq président de la république nee na ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi benn bopp kenn mënu koo xar ñaar Sonko bi nee na ñoo bokk ndey bokk bàyyi benn bopp mënu koo xar loolu ñu wax moo am kon nag ñi ñaan yàlla daal déggoo ba jàmm mën a am ci réew mi. ba ñun ñëpp kenn ku ci nekk dellu si sa liggéey ñaan yàlla feebar bi ci réew mi tam yàlla jëlee ko fi ba li nga xam ne ci la ñuy yëngu yàlla mën ko def yegg fa ñu ko bëggee. Mhm. Euh, Père Palla bi muy jóg ñu bari ñu ngi naan yàlla buggul ku yee fitna mhm. ndax njortoon nañ ne bu jógee fii lay mujj est-ce que jotul woon bi muy jóg rek ñu teel cee dox tànki jaam ëmb ci ndox bu sedd euh, buur day gaaw ndax loo xamante ni mooy la ma la waxoon sànq. ñi ngi ci gaal gi am na capitaine coow bu amee ñaara ko seq na capitaine bi jóg wax mais boo bàyyee ba jaan ji topp nga topp dóor ci wati bi fekk jafe-jafe am na ku nekk xam ne li xew ci réew mi barka démb ah Afrique ak Europe ak Asie yëpp ci ñun la ñuy waxtaan kon nag yu mel nii dafa baax bu amatee ñi nga xam ne ñoo seq réew mi ñu teel a daje toog waxtaan parce que réew mi yëpp tàkk na lu bari yàqu na fi jafe-jafe yu bari xoolal ñaata moor moom moo fi am te yooyu daawul kon daal lii jàngat la ci sonk waaye jàngat la ci président de la république waaye jàngat la ci ñi nga xam ne mooy gouvernement am waaye jàngat la ci population bi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk Sénégal lii daal kon ku ci ne war nga ci jële jàngat boo xamante ni war nga jàpp ni lu mel nii warul amaat war nañ ci mën di waxtaan. pour jàmm dellusi ci réew hmm. dégg ngeen déclaration bi nga xamante ne président defoon na ko ne dossier yu bari da ci teg coñcoom est-ce que dossier président Ousmane Sonko bi jarul woon ñu teg ci coñc balaa muy mujj fii ñu yàqal ci ñu bari rawatina ñi nga xamante ne euh, seen liggéeyu bopp la ñu yor. ah kay parce que bi ma dégloo message message de la nation bi nga xam ne moom la président de la république def ci fin d'année bi def conférence de presse gaa yi mu wax waxam jooja. xamal nit ñi ni am na yoo xam ne moo ci teg cencom dama ni kii xam na ni muy jiitee réew parce que li tubaab naan toute vérité n'est pas bonne à dire loolu moom mooy lii mu wax tey am na loo xamante ni fay ko ca fayukaay ba moo gën nga bàyyi ko ba mu yànjal taal bi lii président wax daal ñëpp rafetlu nañ ko waaye bi lii ñëwee te tegu ci concam ñëpp jaaxle nañ mbirum Sonko mi lu ñu waroon a teel a teg conc la saafara ko buy continuer tamit du doon loo xam ne nit ñi bàyyi nañ ko xel waaye bàyyi daay gi di dem di dem di dem ba yegg foo xam ne waru foo na yegg nga doog a wax man ñaawlu naa ko lool ñaawlu naa ko waaw. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum adduna Pape Fall Waly Ballago Seck wax ah, ne si bëgg a sa yaram ah maanaam sa sa sa liggéey wala wala sa place wala dara wala kër yooyu lijjanti nga def seet sa lépp dina baax si kàttu yàlla ma leen di jox ma leen di jox benn la 539 84 90 539 84 90 tigo bi 76 844 43 800 844 43 44 mooy numéro